man ba ma gisee information bi dama tiit barki alxuraanul karim intercoalition wallu ñoom buggaan sëriñ man sëriñ Moustapha Sy mooy pur lii ngeen lii ngeen def nii lii lii lii lii lii war ngeen ko def lii war ngeen def lii lépp ci bëgg rek maanaam xañ gaay am majorité pour mën a liggéey dëkk bi yéen daal loolu ngeen foofu ngeen toll mais non mais politique politique politique nekkee ne politique nekkee ne du dara yéen ngeen yàgg xeex régime bi fi nekkoon tey mu jaral leen ngeen def intercoalition pour jéem a baare ñin ñi nga xamante ne ñoo fi nekk <laughs> non mais politique a doy waar waay yi waaye déet waaye bu leen def lii li ngeen di def nii barki Mouhamed doo leen ci am ndam ay zéro yu dul jeex la dañ leen di tegee na te bu bis bu la 17 jotee le 18 képp ku fi taxaw naan opposition parce que lii c'est pas une conviction ça ça c'est pas une conviction ça c'est pas une logique quoi amul logique quoi nañ waxante dëgg lii mooy lan non ay waay waay waay Sénégal Sénégal Sénégal sénégalais yi xool leen lii xool leen lii xam nga ni lii lu kéemaane la waay lii de moo nar a ñoom Bougane ñoom Amadou Ba ñoo nar a ànd ñoom Khalifa Sall ay waay ay waay suñu waajur bu baax bi Serigne Moustapha Sy lii bul def lii bu leen def lii waa PUR yéen lu mu mën a demee ñoo far ay waay waay waay ah politique doy na waar daal lii la moo ko jar fii ah,